jaajëfe sëñ Bamba a jaajëfe sëñ Bamba a jaajëfe sëñ Bamba jaajëfe sëñ Bamba jaajëfe sëñ Bamba bu kaw loolu moo ma jooyloo man Sëriñ Saliou Mbacké mi de la doyloo mu xol bu kaaw loolu moo ma jooyloo man sëriñ Saliou Mbacke mi de la doyloo jooy naa ko jooyi xool yu foor man ñàkk naa wurus foor sant la rek moo tax ma muur liru bi diw yow xalamal diglul ma wax la tàgg tuug sëriñ Saliou ngir yàlla ak ji koom ja baatin la jaayi meloom ba xëy ne mes ñu yóbbu ko sëriñ Saali waaj na lu yàgg kenn yëgul lu yàgg yàgg kenn foogewul métti nu cër ya sax taxul mu ubbu ya moom rus ko ajjuma tiis lool gawu ba mbiram yéeme lool ronga ñu tuuru tàng lool ngir ñàkku xut bu ba amatunu ko xut bu samaan ba dem na ni sëriñ saaliw xut bu samaan ba dem na ni sëriñ saaliw weetal na dundu fim tollu ni man yéemu naa ci dundu gi duniyaa du kër te matu ko sëriñ saaliw gone yi jooy nan ko mag ñi jooy miskin yi yooy faqiir yi jooy góor ak jigéen ñépp jooy daram ya jooy ba xutiku ku déglu way wi neex ci moom ñaanal ñu ak juum ñun ña sax moom dañuy tuum dem way wi am na juum sama yéene moo doonoon ma segg ko addi sëriñ Saliou kon bismil xaddiimi barke borom Tuubaa barke sëriñ Saliou barke sëriñ barke mboolem mbuuti xasidi borom Tuubaa kon asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi siyaare ñëpp te di leen balax ku baax te di leen balax di ñaan borom Tuubaa bi nga xamante ni amul kumpa mu boole ñu dimbali ci zaahir ak bari maa ngi jël nuyoo bi ak siyaar bi teg ko ci loxol sunu sëriñ sunu xarit sunu lépp di sëriñ Mbàkke Madina di ñaan sunu borom mu yàggal ya, ko fi te wéral ko ak mboolem ñëpp ñoo xamante ni nag ñoom ci liggéey bi ñoo ngi jël ay kaddu kaddu yi sant yeesalaat cant gi bu baax suñu diggante ak sëriñ bi ci lu nëbb ak lu feeñ te di ko ñaan mu doolu ñoo taxaw te doolu ñoo dimbali ba mon ñu ci boppam kon kaddu yi nag du gudd ndax kaddu yi sant la gannaaw bu ma santee sëriñ bi sant ñi nga xamante fa laa bokk muy samay mbokk bopp sama côté kër baay waa kër maam maamu ndaagu amar gépp sama côté kër nday bakkat Ahmadou Fall gite gi di len ñaanal serigne bi bool leen may gudd fan ak wir te yok seeni xewal te dul leen barke te saxal leen ci borom tuba non lay jele eh, nuyo ahlu xasida bi yëpp te ko ci loxol serigne babakar ni nga xam mom sama xarit la sama jeewrin la sama lepp la sama diggante mom yagul lol mu tassaral mako ci mbolam ahlu xasida bi yëpp ma ngi nuyu soxna yi nga xamante borom tuba dogal na ñu teew ci and ak man. nga xamante ni liggéey bi yàgg nañu ko ànd ak man ma jël nuyoo bi teg ko ci loxol soxna eh, njurul mu wasaaral ma ko ci soxna yi ñëw ak yi ñëwut kon nag kaddu googu mooy kaddu nuyoo yi may yëkkati kàddu ci turu ëxlu xasida daaru salaam Tuubaa njurul bi yëpp ci ndigalu sama jëwriñ sama mag sama xarit sama lépp Cheikh Sidi Mokhtar Amar di ko ñaanal suñ borom dali ko taxaw dali ko may gudd fan te may koy xéewal yu bari ci barkeb turandoom ba maa ngi sant ñi nga xamante ni. borom Tuubaa dogal na ñu jël seen addiya dugal ko ci sama biir addiya ji mu indi leen ko fii ci sëriñ bi muy addiya ji ñuy dajaleel sëriñ Tuubaa mu jóge ci maam Cheikh Anta jóge ci sëñ Modou Mamoun kon may sant ñëpp ci seen dërëm bi ba ci seen nu man di toll ma def ko ci liggéey bi képp koo xam ne daal sa addiya dem na ci maa ngi ñaan sëriñ Tuubaa mu fay la ngën gi fay te defal la gudd fan ak wér képp koo xam ne amoon ngi yéen it te it fekk matawut moom it ñaan googu da ci biir ndax suñu saali wax na ni yéene moo ëpp doole pay jëf loolu ab soñña la kon ñoom ñi amoon yéene ñëpp ñoom it sant nañ leen tey gërëm nañ leen xamal leen ni yoon yëmul ci benn di leen fàttali rek yéen ñi nga xam ne yéen laa bokkal pas-pas jëm ci xaside yi te di leen sant te di leen ñaanal ndax kat lii ñu nekk moom ni ma ko waxee léegi rek neex na neexut ndax pas-pas day day loo xamante ni moom kenn xamut lan la boo xasee jaayante ak sëriñoom ba soobu moom lu ne di ko gis te lu ko dégg bo jëme ci borom Tuubaa bu ragal dara loola man di wokk nah, bul gess waaw man di karit mom bul bul depp xoosal jëme ci borom Tuubaa te yoonu jëme ci borom Tuubaa moom suñu saali wax na ko moo gën li ci gën gaaw moy xasida kon ñu ngi ñaan borom Tuubaa mu saxal ñu ci mbindam mi te defal ñu ci barke ak xewal kon kaddu yoy dal laa ni woon na ko yëkëti tant hmm, gi nak mom day sant go xamanteni mom luma sant rek doyut luma sant doyut ngir seen jëm yi luma sant doyut sant na bax jëwri sant na bax eh, seigne Cheikh ma ngi sant bu baax waaw bu ma leen santee yéen ñaar ñii rek maanaam matale naa lépp di sant sama xarit bi nga xamante ni moom day day kenn di ci soxna soxna satu gaawaan muy njool mi nga xamante ni moom day kenn bëgg lool xasida yi fonk lool mook mook mook mook sa ñuus kon yéen ñooñu mënuma leen ñàkk sant ndax yéen a ngi soog a fekk bu mel nii kon nag kàddu yooyu lanoo lanoo naa ko sant Ibrahima mi nga xamante ni moom it ni ma ko waxee léegi rek day day day jàmbaar moom it maa ngi koy sant bu baax Seydina Xasan ful ko moom du ko sant moom xam na lépp moo ko passif moom du leen sant ñoom ñoom ñoom xam nañ xam nañ li xew kon nag kaddu yooyu laa noonu naa ko yëkkati eh, suñ ngaabu maa ngi la sant bu baax yow moom dañoo bokk siñ saali waaw maa ngi la sant di la ñaan xam naa ne yàkkamti nga lool waaye nag nii dong la boo jógee ci lii ci lu mel nii nga jëm te lépp génnul sëriñ bi nag ma santal eh, nag ma santal eh, samat bu baax a baax di ASC ASG waaw santal ko baax mooy foronte waaye daa nekk soow kon nag kaddu yooyu la naa ko yëkkati sant naa sant sant naa samay mbokki deret sant samay mbokki pas-pas ñëpp yàlla na leen borom tuwaa taxaw defal leen ay xéewal ci zaahir ci baatin kon nag waaxiru dafa na alhamdulilah rabbil alamin ñu jox jëwriñ mu tëj bu ko defee ñu ma ñaan ñu daal di yëkkati jotaay waaw lijud bi awbati ila daari salaam dunya wa uxra wa li tuuba bi salaam أذكى صلاة منه جل بسلام تطيب لي طوبى مع دار السلام مع الآل والأصحاب طرا وردني سريعا إلى طوبى وعني وعلمي وطنتني يا حافظي في طوبى فلتكفها الذرور والقطوبى مكنتني في ديوري يا إلهي بلا كد ولي كنت في طوبى بلا ضرر وقلت لي منك من قادت له الصلحاء وقتني لك من طوبى مع الشور له شكوري له شكوري في دار السلام وفي طوبى بذكر حكيم قد نفى ضرري إلى ديور به دار السلام بلا عناء ولطوبى بسلام إلهي إلى طوبى يأخذني وسلما وجد بامتنان سما ولت من التربى نويت هنا الرجعى لطوبى بإذنه وأودعته جسمي وأودعته القلب كن لي في طوبى برفق طيب بلا حضاب وحياتي طيب مد حياتي يا سلام بسلام في وطني طوبى وفي دار السلام ضفت الكريم الذي يقري بكن أبداً وأنواع ونفي طوبى قد آنا رب استجب ولتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا أدي